Euh, salaamaaleykum bu ma nuyoo mbooloo mi yëpp nuyu ñi fi teew ñëpp nuyu gox-goxaan yëpp damay kontaan tey ci teew fii am fierté teew fii am satisfaction totale. Mhm, di kontaan lool ci ki nga xamante ni mooy suñu leader nekk fii di monsieur Lat Diop nekk fekk frère am monsieur Aliou Sall donc tey buñ ñu woowee ci lii dañ ci sawar vraiment parce que ñëpp xam nañ ni laa santé avant tout donc te Lat tey ñëw na. ñu gox goxaan yëpp tey teew fii ñuy def li nga xamante ni mooy euh, don muy ambulance ñu jagleel ko polyclinique bi nekk fii cité Hamo euh, 3 ñu ko ciy remercier bu baax di ko ñaanal bu baax moog monsieur le maire Aliou Sall ndax xam nañ ni ci social rek la ñuy dox lii duñu ne guléet donc yàgg nañu di def euh, geste yu mel ni donc dañ koy saluer te di leen encourager bu baax a baax a baax ñu continuer ndax santé moom li ñu ci def rek doyul. man maa ngi tudd Matar Seck di responsable politique au niveau de la cité des enseignants di rakk ci Lat Diop ah bon une senti un sentiment de fierté la ñoom ah ci ci ci suñu leader le DG de la LONASE donc comme ni ko maam ne la waxee léegi c'est pas une première fois donc su ma juumul c'est plus de cinq ambulances ngi nii mu koy maye au niveau de la commune de Golf Sud. et plus plus précisément dans le département de Guédiawaye donc du ñu du ñu def lu dul di ko gërëm di ko sant ah di ko wax ne on est fier de lui et c'est une référence ah c'est une référence pour nous les jeunes kontaan nañ ci moom ñu ngi koy ñaanal li muy yootu mu mu mu yomb ci moom donc maa ngi wax tamit tous les militants ñu préparer ñu ñu ñu ñu dem en en route pour la pour la mairie de Golf Sud incha allahu rabi waaw. parce que je pense que c'est le meilleur candidat le meilleur profil sur tous les plans donc euh, ñu waajal incha allah. maa ngi nuyu maa ngi tudd Souadou Bokoum nekk responsable politique cité des enseignants lu tax ñuy war Lat Diop mooy la solution mooy la solution parce que li mu fi def kenn defagu ko fi. yërëm nañu jàppale nañu mu ngi ñuy taxaw lu mu am moo koy bokk ak ñun te bëgg na ñëpp nekk si jàmm ñëpp faju ñëpp am jàmm parce que ambulance yi muy maye bëri na. mu ngi mu ngi jàppale askan bi daal mu ngi jàppale askan bi. Euh, Lat mooy euh, le candidat potentiel moom pour la mairie de Golf Sud moom la ñëpp taamu parce que li muy def maire yi sax defuñu ko. même bu jëlee mairie bi moom day yeggali rek day gën a neex day yeggali rek parce que moom mu ngi sur la bonne voie xam nga te mu ngi def social mu ngi jàppale nit ñi mu ngi utal xale yi liggéey mu ngi leen di taxawu. xoolul kii man la àndal xoolul kii man la àndal ñëpp la taxaw ñëpp lay taxaw mu ngi ci domaine yëpp mu ngi ci ñëpp ñëpp kenn kenn ku mu xam ak ku mu xamul ñëpp a kontaan si moom ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp santé mais quartier bu nekk ku sayo danga nga fa am da fa am benn ambulance ndax lan ndax nit ki da xëy ba guddi nga feebar bala ngaa am taxi ba la yóbbu wala nga am oto bu problème la léegi tey nga am ambiance boo xam ne à ta disposition kooku sant yàlla léegi nag tey fekkee sax waxuma sax suñu gardien mais ñu indi ko tey ji def ko suñu poste sant sant bi sant subhanahu wa taala parce que wàññeen loolu boo ñi ko fi indi tey muy monsieur le directeur ak monsieur le maire di leen sant yàlla subhanahu wa taala mooy le fan wër gi yem lépp ñu si yàlla may la ko ñu continuer loolu maa ngi di gërëm di ko di wax ne ne nun de li may wax nii waxuma ko pour politique de parce que man doo politicien mais gis naa Aliou Sall bi nekk li mu fi def géejawaay Guédiawaye est devenu plus propre parce que yàgg naa fi gis naa ñuy daal yi éclairage public bi gis naa itam euh, Lat Diop lu muy def fii donc tey bu ñu indi poste santé bi def na gër ko parce que nit ki def la defee dara ngeen ko jërëjëf lool laa bëggoon jër jërëjëf. may nuyu sama papi bopp yi nga xamante ni ñoo dëkk cité enseignant ak amoo 3 di wax ni ak littoral bi di wax ni gis naa responsable politique yëpp lii ñu fi daje tey. lii tax ñu ñëw fi tey du ma ci sori ndax du ne guléet te mën naa wax ni asaka suñu yéene kese la muy remise u ambulance ak matériel médical yàgg nañ ko def donc du ñu ne guléet moo tax duma ci sori xanaa lu dul di leen wax ni du sax suñu asaka yéene du yéene suñu naka laa ko du asaka suñu yéene lu ndaw la ci lu ñu yéene dëkk bi te duñ ko ndamoo duñ ko bàkkoo ndax dañ ko def par devoir ndax suñu devoir en tant que doomu gox bi mooy lépp lu ci lu ñu mën a def lépp lu ñu mën a def ñu defal ko dëkk bi parce que ñun fii lañ dëkk lu ñu am fii lañ koy indi donc il est très normal que bu ñu interpellé ci lu mel nii ñu mën ci def dara dañ koy def te jàpp naa ni bu yoon jeexul waaxu suul di dañuy tàmbali yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen dina ñëw loolu rek laa ciy wax